هي دنيا فإن زرتك يوما فإن المصنع عاقبة السرور هي دنيا فإن زرتك يوما فإن المصنع عاقبة السرور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي بكتال بي يب mbokki taalibe murid yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi suñu kilifa yu baax yi alaaji Mouhamadou Lamine mi xalif général de murid ci ndigalam lañ toogee fii sëñ Amsatu mi moom sëñ Abdou Lahad Cheikh Saliou Mbacké moo joxoon ndigalam fii ci kër sëriñ Touba gii jàkkaarloog jumaa ji joxoon ko ndigal mu di fi gàmmoo at mu ne gàmmu na ko fi ñetti yoon ci kanamam bi yàlla dogalee lim dogal ci moom it ki ko fi wutu di El Hadj Mouhamadou Lamine Bara yeesal ndigal loolee ñu war a gàmmoo fii ci kër Seexul Xadim ci Touba. la njëkk ñu ko yëgal nag mooy waa Touba gépp yëg ni sëriñ Amsatu moom sëriñ Abdou ngi gàmmoo fii ci kër sëriñ Touba gi fu taalibe mën a nekk te mën a ñëw ànd ak moom ca gàmm googu dundal guddi gi ci ni ko sëriñ bi diglee tax si bi sunnati ngi ñëw ñu ànd ak ñu ànd ca liggéey boobu te xam ne nit moom lépp lu muy def rek bu ci amee ndigal loolu amatul lenn luñ cey segg wala luñ cey seet surtout nag ndigal lu jóge ci Serigne Touba moo tax ñu teew fii nag bëgg koo yaatal ne lii sax wuñ ci fekk waaye mbir nag boo ca demee dem ci ba ca kanam boo bëggee mu yaatu bëgg nit ñi am ci pas-pas da leen ko yëgal loolu mooy suñ teewaay fii ñu nekk ci kanamam fas yéene ànd ak moom ndax ba ku sëñ bi joxe ndigal li ba léegi at mu jot ñoo koy ànd ñuy ñaan na képp ku ñu bokkal sëriñ rawati na njabootuk sëriñ Abdul Ahad ñu xam ne bis bi sunu bis la cër bi cërub sëriñ Amsatu mii la te nit ku nekk la nga am ci sëriñ Tuubaa ca ngay mooy jàpp ca yëkkati ko ndax balaa na ñoo xam ne lañ yor amul solo waaye yëkkati nañ ko moom dara kon na ko yor dara da nga koy fonk te téye ko ba ñëpp mën caa jariñu loolu mooy sunu kàddu ci mbir mi. Ah, ñoo xam ne it lépp lépp lu fi teraanga kenn jiitu ci El Hadj Mouhamadou Lamine Bara ci turu Sëñ Tuubaa it la ko def kon ñu itam war nañ cee góorgóorlu ba mel na war a mel ñu ñaan nag suñu borom may ñu fekkee ko ay at tam yàgg na ci suñu kanam ñu ne ci gannaawam te ànd ak moom liggéey Sëñ Tuubaa